na comme d'habitude rek euh, tey la samedi ñu fi dalalaat beneen ndaanaan jëm ci wàllub euh, culture jëm ci wàllub musique bu ngeen ko gisee di ngeen xam kan la ndaxte yàgg na leen bercé ci ay morsom yu neex yi nga xamante ni à chaque fois su woyee ñëpp xam ni euh, bu woyee wax na lu ko waral nag mooy day way ci thème waaye itam day way ci musique bu neex teg ko ci axe comme disent les autres donc tey ñu am mbégte recevoir ko tey donte ni nag fête yi ak emploi du bi xat na concert yeeg yi bëri na gars yi nangu na ñoo ñëw wuy si kooku nag du kenn ku dul euh, Pape Birahim Pape vraiment tey am nañ mbégte recevoir la Sénégal 7 rawatina ci émission bi di Sénégal VSD euh, Penda maa ngi lay fay maa mhm. lay euh, bége mhm. di kontaan aussi ci invitation bi di rafetlu vraiment mhm. plateau bi aussi kontaan quoi li ma fi gis macha allah dafa daal sama xel. aussi mm. euh, Sénégal di la ñu soxla. nee naa la ko gisatee rek. macha allah vraiment di euh, nuyu madame Ndiaye. Mm-hmm. aussi ak euh, Pape Ngagne. Mm-hmm. di wax ni macha allah. ni mu mel rek la fi mu fi mu yor. Mm-hmm. ni mu mel noonu moom loolu la wuyu quoi. waaw ni ku nekk noo mel rek noonu la say mbir toll. macha allah di leen souhaiter bonne fête vraiment ak suñu mbokku chrétiens yi nga xamante ni. Euh, ñu ngi fii ci Sénégal. Mm. Euh, nekk ay nit yu diñ nekk mm. ay nit yu jàpp seen ñàmbur. nga bëri ci ay fans loolu itam vraiment bëri ci ay fans. Mm. Euh, ñoom ñoo ñu gën a bëgg sax nabi bi ma way. Mm-hmm. mun naa ne ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg. ñun ñun jullit yi. Mm-hmm. macha allah. Euh, donc maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ni ak ñoo bari jàmm. Mhm. yal na leen yàlla sàmm. Euh, mhm. sàmm képp koo xamante ni yaa ngi fi ci Sénégal bi aussi di fi véhiculer lu baax. Mhm. aussi di fi dox ay tànk yu baax. Euh, ba tax bu askan wi royee ci yow rek incha dina Sénégal dina jëm kanam. macha allah am na solo ñun également au niveau de Sénégal 7 ñu ngi renouveler sunu ay vœux jëmle ko ci communauté chrétienne bi yëpp waaye tam ñëpp ndax Noël moom léegi kenn moomatu ko. Ah, ñëpp koy màggal jullit bi comme chrétien bi. Ah, chrétien sax dañuy tabaski dañuy tabaski dañuy korité réew mi day wàññi Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar donc di <laughs> kontaan vraiment euh, ci nu ñëpp nekkee benn Euh, di leen euh, ñaanal jàmm également ci 25 décembre yi euh, ak yeneen fête yi topp topp yëpp parce que décembre moom ku ne ni mois de fête la donc ñu ngi leen ci béggee bu baax a te di leen wax également ngeen saxoo ci programme yu Sénégal 7 di leen leen accompagner bu baax a baax ci fête yi Pape nag nga gën a mën a xóotal suñu waxtaan ginnaaw ba nga véhiculer say vœux jëmale ko ci say fans chrétiens ak ñeneen ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci laxasu ñu fas yéene nag gën a door suñu waxtaan dooree ko ak ci actualité bi donc xam nga ni réew mi ci gën a fës ko na ci euh, ànd sàmm jikko yi nga mm-hmm. xamante ñoo tëral seen ab euh, loi mm-hmm. euh, daal di koy rédiger mm-hmm. jébbal ko assemblée nationale député ya fa nekk ngir ñu ceytu ko waaye itam ngir ñu mun koo adopté mu ñeel ñu criminaliser viol homosexualité fii ci Sénégal sa gis-gis par rapport ak lu ni mel waaw sama gis-gis ci loolu man bi ma gisee euh, mouvement boobu ñuy ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ñoom imam Makhtar sama xol dafa sedd imam Babacar moom laa fi dalaloon démb vraiment sama xol dafa sedd aussi dama ne Sénégal mun naa ne kon ñoom ñu ngi ci tànku rëcc ñu ngi ci tànku raw mm. que ànd sàmm jikko yi nit bu ko déggee rek da ngay jullit mm. war nga mën a ñooñu war na leen mën a jox cër mm. ñooñu war leen war nañ leen mën a ci loolu bariwul ci àdduna mm. ñoo xamante ni ñu ngi saytu nit ci li ñuy jëf mm. ci seen melokaan ci seen i jikko ñu ne dañ koy taxaw sàmm ko ñooñu bu ñu ko sàmmee ñun lañ ko sàmmal suñuy doom yi ñëw lañ ko sàmmal ñuy sët yu ñëw lañ ko sàmmal tegaat xale yi ci yoon xale yi ci yoon man ñooñu li ma leen di ñaanal mooy mm. macha allah yal na yàlla guddal seen fan ba ñoom seeni i sët sëtaat topp seen tànku seen waajur yooyu kon daal yow euh, loi bi ñeel ngir ñu mën a càmbar bu baax a baax mbirum góor jigéen yi fii Sénégal waaye tam ku ñu jàpp ne ab góor jigéen nga rek mu bañ a yamati ci loi bi nga xam tegoon nañ ko ci acte contre nature euh, ñu daal di lay teg ay daan ànd nga ci. xam nga ñun euh, ay jullit lañ. Mm-hmm. am na loo xamante ni doit ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo ko fi teg. déedéet. Mm-hmm. yàlla suñu borom moo ko fi teg. moo ci jiitu yàlla ma wax ci alxuraan que ni mm-hmm. bëggul góor jigéen. loolu yàlla moo ko moo ko moo ko moo ko sib yàlla moo ko sib mm. dafa xaram sib nañ ko xaram na bon na mm. donc wallaay du loo xamante ni mm. waa ànd sàmm jikko yi dañ leen ciy fan wala dañ leen ciy euh, loo xamante ni c'est c'est c'est normal et c'est valable pour tout le monde mm-hmm. pour ñëpp yonent yàlla nuux gis nañ ak yonent yàlla euh, lóot ndax yàlla day wax ci alxuraan wa daraballaahu masalan imraata nuux wa imraata lóot kaanataa taxta abdayni min abaadina saalihayni fa xaanataa huma ah gis nga ñooñu ay ay ay ay ay ay ay ay soxna euh, yenent la ñu woon mais ba ñuy encouragé mm. seeni xeet ci mbiru góor jigéen mm. yàlla daf leen wax ni gàddaay leen mm-hmm. yonent yàlla nuux bi doom ji di di di di di lab ba mu leen bañ bañ leen di labal mm. muy xaw a am yërmande ci doom ji yàlla def na ko kii bokkul ci yow ndax mun nga jur sa doom te lu bokk ci yow. dëgg la ndax di nga am doom jikko bi nga xamante ni moo nekk ci yow mais du nekk ci. dëgg la du moom. ça c'est vrai day mel ni juruloo ko day mel ni mm. moom nuruwu la. c'est vrai. Mm. ñooñu seen soxna ñu ngi biir safara. Mm. kon nag bu ñu waa ànd sàmm jikko yi bu ñu taxawee temm. ci lépp loo xamante ni lu bon la. ci lépp loo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoo ngànk yooyu ñuy véhiculer loolu aussi di ci ànd ak ay nit yoo xamante ni je sais pas que euh, dañ leen di dooleel mm-hmm. bu ko defee ñoom ñu bañ loolu taxaw temm ndax mbugal buy ñëw ci réew wala du yem ci du yem ci kenn du yem ci mm-hmm. borom xam-xam bi du yem ci imam bi ñëpp la yàlla di maasal mm-hmm. yal nañ ci yàlla musal donc euh, mu nekk ay kàddu Pape Birame yu am solo jëmale ko ci attu euh, ci actualité bi beneen actualité également euh, mu ñeel violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko te ba tey mm-hmm. c'est toujours d'actualité pourquoi parce que ñi ngi dëgmal ay événements sportifs mm-hmm. ñi ngi dëgmal également élection yi mm-hmm. mu ñeel élection locale yi ñu dëgmal ko weerub janvier atum 2022 sa gis-gis par rapport ak violence yi jamono jile tar gu tar ci Sénégal saa yu manifestation amee rek daanaka xale dinañ jàmmaarloo ba am ñu fi ñàkk seen gis nañ ce qui matin également ci fan yi ñu génn mm-hmm. ci stade bu Tëngéej mu nekk li nga mm-hmm. xamante ni ñëpp ngi koy ñaawlu mm-hmm. waaw dafa am euh, aussi li naan éducation de base dafa baax ci doomu aadama euh, doomu aadama dañu naan bu kontaanee dafa war a ànd ak xelam su meree dafa war a ànd ak xelam am na loo xamante ni yow taloo ko man taluma ko am na keneen ku ko talu dëgg la mooy que ni jullit yàlla daf ko tracé yoon yoon boo xamante ni da ngay xool yoon bu baax ak yoon bi nga xamante ni du yoon bu baax mm. am na lu bari loo xamante ni doomu adama pour man waru nekk sa sa sa objectif mm. topp nit bay reyante topp nit bay xeex mu lay jaral yaa xam da ngay xeex euh, ngir mbër yaa xam ndax da ngay xeex doo sax xam doo xam sax euh, mm. peut-être que nit yi yan façon nit lañ actuellement bu fekkee da ngay xeex ndax mbër mu jaral la ay saaga ngay saaga ay nit wala di toj ay bopp nit wala di agressé ay nit kooku yaa ngi yàq sa àdduna te doo ko xam. xam nga nit ki nga am problème. nit ki dina yàqu euh, euh, intérieurement te du ko xam. dëgg la. Mhm. ñun ñi nekk ci mbiru àdduna yi bu bu ñu jaral nit yi ñuy rey seen bopp bu la jaral ngay saaga ay kilifa. buñ la jaral ngay manque de respect ay nit. parce que ba ci yéen ci artistes yi sax des fois ngeen am ay fan yu nga xamante ni des fois mun nañu xeex euh, nekk ndax yéen ndax cofeel bi ñu am ci yéen. jaru ko te loolu ay xeetu mais jaru ko. Hmm. jaru ko parce que <laughs> quoi qu'on puisse bu ñu waxee dëgg te yàlla tax affaire musique affaire seytaane la. Hmm. affaire seytaane la yàlla gërëmu ko fenn. Hmm. yàlla gërëmul euh, musique encouragé wul nit buy def musique musique dafa xaram. dañuy ñaan yàlla ñun ñu koy def lu ma jaaxal mhm. musique dafa araam mais pourtant yéen artistes yi am xaalis yéen ci ba pare ngeen ciy gis seen bopp waaw man loolu daf ma a yéem am loo xamante ni buñ mhm. boo ma ko posé mhm. parce que dafay euh, dafay compliqué pour tontu xam nga man dafay compliqué pour tontu parce que musique dafa xaraam te yaa ngeen xaalis mënu ma wax ni que ni non parce que li musique à xaal dafa xaraam man da nekk naa ci mais maa ngi ñaan yàlla Euh, génnee ma ci incha allah bés bu ma ci dem waa ne si bëgg naa ci dem mm-hmm. maa ngi ciy dem nag mm-hmm. bu ma ci yàlla génnee mu doon lu ma gënal Pape Thiampete sama plateau bii mm-hmm. ni ma bàyyi naa musique wooyu jàng laay wooyu ñu gees gis ko mu wooyu non man waxuma la bàyyi naa il faut que ça soit clair mm. il faut que ça soit clair mm. nit bu nekk parfois di nga nekk ci loo xamante ni ak dalaal lañ koy woowee mm. réer mun nga nekk ci dara loo xamante ni euh, sa chemin la danga koy dox Mm. mais bul ko bul bul dox ci lu bon ba koy rafetal. Mm. am na solo non da nga koy wax ni. Mm-hmm. il faut dire les les chose telles qu'elles sont yàlla bëgg ko. lu mm-hmm. xaraam la parce que dañuy dajale ay nit. Mm-hmm. ci boîte yi dañuy dajale ay nit parce que suuratul shuara ay loolu lay wax dañuy dajale nit ci boîte yi ñuy fecc. léegi nag donc dañuy wax dëgg bi mooy que ni ñu ngi ci mais dañuy ñaan yàlla bu ñu gisee lu ko gën. ngeen nekk ca ñu bàyyi ko. dam nekk ci leneen. am na solo mais muy sama fan muy fan su keneen ak keneen. foog ñu jox cër ñi nga xamante ni ay kilifa lañ foog ñu jox cër ay mag parce que gis am na ñoo xamante ni. Mm. yàlla daf leen cëral te doo ko xam. Mm. donc respect na ko doomu aadama yi di am. Mm-hmm. du la wàññi dara. du la wàññi dara moytu violence bi. Mm. ci muy internet muy ci stade yi bu mu la jaral parce que kiy xaalisam këram la koy yóbbu. kii way xaalisam këram la koy yóbbu. politicien bi tamit su gañee voilà ñoom la ñu noonu ñu def. c'est vrai yow foog ngay nekk nit. Mm-hmm. Euh, ginnaaw ba ñu àttoo nag ba noppi euh, ñeel actualité bi bëgg naa ñu gën a xuus ci sa euh, carrière mais mu bëgg nga dooree ko d'abord ak sa parcours.